ما لنا في الكون سوى الرحمن والمصطفى وشخصية أحمد التجاري ذاك الذي نال ما لم يعني بشر شاء من العطايا ولم يخرم بمقياس ماذا ترى تمري كان الله gi. sol ci xolu ñooñu. ñu ngi ci ay numaa di diine ak yeneen tey nag dañ doon conférence bu mag fii ci waaye conférence bi dañ ci doon defal hommage suñu wajur alxaaj Yuusuf Njaay suñu yaay soxna léegi nag ñu ngi nii ca cet la ñu toog ak suñu wayjur soxna Adja Fatou tabarakallahu ak soxna Leem Wat nga xamante ni tabarakallahu mooy rakk suñu wax ñu ñaan ñëpp nag kii nga xamante ni dañ koy def hommage góor la ko conférence bu baax la ko amoon diine waaye mooy te nga ne ci diggante bi bu ñu def zawiya ñuy laajte soxna Leem Wat mu di ko wax tuuti ci am ku ko fa may suñu paree ñu ne loolu nag du jëmmam mbaaxu yàlla la mbaaxu yàlla la waaye mbaax boobu waaw yàlla nga ko jaarale ci jëmm alxaaji Malick Sy ñaari waajur ak si naaj ma doon si fa Ndiaye El Hadj Youssou Ndiaye. nee kon ñu ngi koy sant bu baax asmaa yàlla ma ko mën a fay. ndax loolu waaye ñu ngi maa ngi koy. loolu lañ leen di doy. sama nga ne moo koy nga xam ne tey asma lépp tey la ko sagal sigil na ko. nee na xelam dal na. kontaan nañ trop asma yàlla yàlla kontaan si yow. ñoom euh, nekk ci ba mu yegg si ñu amee ay doom am ay sët ñu ciy nab nabi ñoom ñu toog doom yi di def loolu di leen ci uutu ak seen sët defin bi gën a rafet seen xel dal na. ne waaye loolu moo dem léegi muy zawiya ba ma doom di bëgg yàlla dugg ci ndala loolu. bi ñaata ñaanal yàlla nag mu yem foofu. li ma xam mu gën a yaatu. li ma xam ci moom yëpp ndax njaboot bu ne. di dimbali ay doole doole. lii daan dem ci moom am yërmande ñëpp yal na yàlla. ko war borom këram it fu mu jëm yàlla kilifa yii ñu am ku leen di xaar wala ngeen di déglu doo leen gis jëf Aïnou Mady TV ñoo ñëwoon tey jël ak yéen conférence bi tabarakallah di gërëm nag suñu Abdoul Aziz yar nañ leen waaye di gërëm sama waa lu ñu war a def mooy sama réalisateur ñu xam ne intérêt maam dara général la nga xam ne tabarakallah moom mooy jël chaque ajuma ci télé bi تبارك الله وتي ايميسيون سيرة في خير العربية كنت رامي جزاك الله خيرا بسم الله وينك دي وقني كاب كليفة يجي كاب نوري كرم دوم كرم لكم شيخ أحمد تجاب جاي وين روات لنك مم شيخ أحمد تجاب جاي أبلاي mi nga xamante ni moom Ablaye Sylla moo ko jàppale ci biir ak ci biti Ablaye Sylla taxawu na Cheikh Tidiane Ker taxawu na ko ci naaj Ablaye Sylla xam naa ci mooy taxawu diini digganteem ak Cheikh Ahmadou Tidiane Laye dem na ba tudde ko doom doom naw nga ko Ablaye Sylla nag ku jàpp taxawu njaboot bi ak suñu baay Youssou Ndiaye mi ngeen waaye ku taxaw woon ne ndax loolu wat la ak Cheikh Tidiane Ndiaye Ablaye Sylla li ci réew mi ak jamono yàlla am na ko yàlla na ko yàlla yomb. nee beneen bi ci des. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu bisimilah.